di leen gërëm ci seen teewaay du nuyu suñu mbokk journaliste yi nga xam ne tey jii suñu déggee suñu tur yi xam ñu c'est grâce à vous je pense que le sport et les journalistes c'est une famille boo xam ne ñun ñoo ko bokk te tey jii wane na seen présence tey bi ngeen ñëwee assister ñu. foog naa ne sama sama sama sama sama sœur Nathalie wax na lépp du ñu dugg nag ci détail yu bari def naa ne fond problème bi xam ngeen ko dañoo doon ay ambassadrice ambassadrice représenter Sénégal dignement à travers partout dans le monde ñu sargan ñu jox ñu ay kër ñu jël championnat d'Afrique tegle ko quatre fois gagné ko parmi ci douze yooyu foog naa ne ñun gagné nañ ci six yi gagné ay championnat d'Afrique coupe du monde du ñu dem ci tant de fois Jeux olympiques les Jeux africains ba bi mu mujjee wax ñu gagné la France Madagascar en finale lu kenn defagul ci Afrique ah ñu foogoon nag ne ni ñu doon ay ambassadrice à l'extérieur que bu ñu nekkee suñu réew fii am na cir boo xam ne war nañu ko jox mooy la respect parce que ñun ñi kenn dégguñu ci dara. li ñu may ñu ngi siy toog bu ñuy sombi ñu ngi sombi bu ñuy ganaar ñu ngi ganaar kenn xamul si lu ñu ne ba ñu xëy un bon jour ñañu ñu ngeen di génn nanguwuñu nag bañ a génn mais génn dafa am condition parce que nu mu metti metti metti fi suñu ay kër la dañu ko may ñu fay ko cash ñu yor suñu ay këyit kon def naa bu war a toog génn amee war na ñoo ñu toog wax ak ñoom ni mu gën a rafetee ñu déggoo si ay kàddu ku nekk xam li nga war a def mais du ñu ñëw à la grande surprise andi ñu ay arrêté te tey jii immeuble bu amee problème su ñoom la du su ñun parce que ñoom ñoo fi tabax loo xam ne que moo indi problème bii amul garantie ñu jël antenne buy def presque ay tonnes aj ko sa kaw immeuble ba ay fissure am lu nekk mais taxu ñu xale yaa ngi toog muñ ko fi. kon tey jii bu ñu ñëwee nañu génn leen par respect war nañoo toog wax ak ñun ñu discuter te ñu wax ñu tamit fi ñu war a dem coow la nag yàgg na commencé ñu jàpp comme ni ñu ko nit ñi xamee Dakar rek Sénégal ñun Lyon kenn mësuñoo dégg si coow wut nañu ay audience gis ñi ñu war a gis waxaat ak ñi ñu war a wax ñu jox ñu ay promesse ñu tenir si promesse yooyu waxuñu digguñu kenn xamaluñu dara. bi ñu jotee arrêté bi nag nañu ne jug jot na arrêté bii moo tax ñu toog tey def point de presse par respect rek pour rek indiwaat nit ñi ñu xalaat si li ñuy def ñu xeexuñu parce que foog naa ne suñu image de marque am na lu muy représente si dëkk bi kon du duñu daan duñu nangu dara lu ñu koy yàqal te ñun ñi fi toog ñëpp ay grande dame nañu dañoo yor ay famille yor njaboot suñu ay doom juddu fii di jàng ci école yi duñu détruire seen avenir te nee nañu avenir u état c'est les enfants c'est la jeunesse kon nag doom yi ñu jur ëllëg ñu war a doon Mamati Mbène wala doon Nathalie wala doon Adama Diop wala doon keneen ak keneen tey jii ñooñu nañuy défendre ñu parce que duñ leen gër yóbbu leen foo xam ne xamuñu lu ñuy fu ñuy fu ñuy suti yow li ñu bëgg nag mooy ñu wax ñu bi ñu génnee fii fan nañ ñu yóbbu bu ñu génnee fii lan moo ñuy xaar feex immeuble yi di pare parce que nag garanti lu ñu soxla garanti mooy lan jën nañ sa kër nañ la wax dañ lay déloger te ba ñuy wax directeur HLM dafa newoon dañ ñuy déloger reloger ñu feneen ñu def suñu liste jox ko ku mel ni yaayu feu Adama Diop bii toog dëkku si kër gi waaye kër gi da koo mooy dépense am ci la yore parce que doomam da koo yoroon yor bi war année ba doomam génnee àdduna na jël loolu jox ko mu siy dund kon tey ji bu ñu du ñu nangu mukk ñu jël ko détruire loolu duñ ko nangu feu Ousseynou Ndiaga Diop bi bàyyi doom bañ jabara ay doom ñu ngi ñu toog Ousseynou amul lu mu defarul senegal amul lu mu defarul Sénégal fii baa sollicité ko fu nekk kon tey foogoon naa ne waroon nañu aar famem waaye defuñu loolu mais nag man si sama gis-gis maa ngi am yaakaar ba léegi parce que nee naa ba léegi def naa ne li yoon yi ba léegi war nañ ñoo respecté te maa ngi am yaakaar ba léegi ñi nga xam ne ñoo yor dossier bi xam naa ne dinañu gëstu wax ak li war sa ñun ñu def ko fi ñu waru a yóbbu ñu yóbbu fa xale ya ñi ñu war a jox loyer seen loyer par mois ñu leen koy jox ba kër yi fi di fay pare. ñu jox ñu ko nekk la nga moom nga dëkk soxlawuñu xaalis ñun jaayuñu boo déggee fii ñu ne Maris immeuble des Lions suñu patrimoine la Nathalie wax na ko suufu stade nañ naan tëdd aéroport yi ñu fay fanaan 5000 francs per jom 2000 francs soo génnee extérieur ñu am jom rek di gañe rek ba tey jii mu am os ba tey jii suñu sœurs yi dama ne bénéficier yu ëpp loolu ñu kontaan si nag mais nag lu ñuy def yëpp c'est pour le basket bañu ne nag état parce que état bu génnee trente trois cent millions basket amoon na fi problème ñu génn trois cent millions joxe ko kooku bañu basket ñu ne déetawaay mu jër arena tabaxal ñu ko muy tiitër si Afrique kooku bañu ni kon kooku foog naa na dañoo réeroo dinañu waxtaan juboo si ay kàddu ñun loolu rek nañuy yaakaar yaakaaruñu leneen lii ñu def nii pour ñu ñu xam na ne mënuñu leen jot moo tax ñu toog fii di wax di xaar nag suñu ministre des sports suñu président de la fédération de basket les anciennes gloires nouvelle génération bi ñu épaulé ñu ànd si ànd bu rafet dafa suñu basket bi si basket bu rafet ñu delluwaat suñu ay kër dund dund bu rafet loolu rek nañuy ñaan amuñu leneen lu ñuy wax. te foog naa ne tey jii li ñu woote ni ñu wuyuñu rek. fiir firnde nañ ñu bari na nit ñi respecté nañu ñun nag ba léegi comme ni ma ko waxee léegi confiance bi mu ngi reñ ba léegi ñun foog nañ ne dinañu woo toog wax ak ñun li war ñu def ko ñun mais justice duñ fa dem mënuñu la wax lu ñuy def sumaguñu dara fuñ toon ni sumaguñu dara parce que ku bëgg a xeex mooy suma te ñun bëgguñu xeex